allahumma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5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 waaye ñu bokk sant yàlla buur bi ñu may fanaanuk jàmm ñu di ko ñaan mu may ñu kendaluk jàmm ba tax na ñu koy tàllal loxo di ko ne allahumma anta salaam wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayyinna bisalaam wa adxilna aljannata daaraka daaru salaam ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak njaboot xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu jàngal la nga xamante ne mooy xéewal ba yàlla di xéewalal doomu aadama bi naka doomu aadama bi di delloo njukkal waaye na doomu aadama bi di sante yàlla ci anam bi nga xamante ne moom la ko buur yàlla gërëm waaye ànanu ndoomu aadama bi di sante buur yàlla ci anam bi nga xamante ni moom la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci la yonent bi jàngale ne yow jullit bi gannaaw bu la yàlla xéewalalee bi nga yeewu ci nelaw bi nga xamante ne mooy xéewal bam la xéewalal nga jëfandikoo ko yonent bi nee na la boo ci noppee danga war a wax alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur moo ne danga war a wax ne mboolem xeetu cant yu kawe yi mboolem xeetu cant yu matale yi mboolem xeetu cant yu mucc ayib yi ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante moo ma dundal delloo ma sama ruux gannaaw bu mu nammee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te mooy nelaw ba ma doon nelaw ci waxtu si néew ci ginnaaw waaye nag bu ma jógee ko ci dund bi duma dellu ci kenn du ma dellu fenn fudul fa moom yàlla moo tax nga déggee ci njeexantalu ñaan wi ñu ne wa ilayhi nushur ci moom yàlla lañuy dem ximbale ko keroog bu ñu suuboo ci nelaw bu mag bi nga xamante ne mooy dee mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xam ngeen ne ñu ngi ànd ak yéen bi léegi ci la nga xamante ni mooy la askan bi tànn ci ay fan yu néew ci ginnaaw mu di la nga xamante ni mooy la askan bi bàbbeeku tànn ndaw yeleen war a teewal ci pencum ndew réew mi ñu di ko duppee assemblée nationale ñu nit ñu bokk ci askan boobu tànn ndaw yooyu yàlla dogal mu nattooñu ñu war a jëfandikoo xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa fa yonent bi di baaxee askan bi mu di ñu wax ni addiinu diine bi de an nasiha laahente biir la diine bi diine laayante biir la kenn ku nekk la nga tane sa morom mënees nga kaa laaye biir ci côté woowee bu koy dégg bu ko du dégg yow sa laaye biir sa conseil bi na jib sa message bi na dem waaw la yàlla wax yonent bi ci suratul xaf mooy wa qulil rabbikum fa man chaa fal wa man chaa fal yakfur waxal dëgg waxal li am te sa boroom sant la ko qulil xaqu min rabbikum wax leen ne dëgg di fa yàlla la bàyyee moom laa leen di wax nii de fa man shaa fal yu'min ku mu soob nanka gëm wa man shaa fal yakfur ku mu soob nanka wedd waaye laaye biir ba ñuy def tamit ñu nit message la bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi ñun dañuy ñaan yàlla suñu boroom ñun ma koy taxawee ak yin ña koy taataan ak ña koy waaja taataan ak képp ku ko nar a jëfandikoo yal nañu buur yàlla may dégg ak topp nasaluka allahumma an tajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana yal nañu yàlla boole ñokki yéen ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànn la ci gën a rafet waaye dañuy jëfe la sa gën a jekk amin ya rabbal alamin ngi di ko yóbbanti suñu ndaw ya ñu tànn ci askan bi ngir ñu teewal ñu ci pénc mu ndaw réew mi kon la yonent bi wax ci xadis moo ne suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi nii duñu wax geste bu noble bi nga xamante ne kenn ku nekk ci jullit ñi war na kaa war a mën a taxawe xataa kenn ku nekk ci nit ñi war na kaa mën a taxawe ndax yàlla may fay bu la fayee rek nga xam ne sa taxawaay boobu taxawaay bu am solo la sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko baaxee yal nañu ko yàlla fayal mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi sallam daf ñu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi sallam ahabul aamaali ila allahi taala sururun tadxuluhu ala muslimin aw takshifa anhu lkurbatan aw tuqdi anhu daynan aw tatrudu anhu juucan rawahu tabarani fi lkabir wa xassanahu l albaani mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yonent bi sallallahu alayhi moo nekk di jàngal jullit bi geste bu noobul boo xamante ne fekk yaa ngi ko mos def ci sa dund xamal ne jëf nga jëf bu gën a neex yàlla jëf nga jëf bu yàlla gërëm ci say jëf jëf nga jëf bi nga xamante ni yàlla sopp na ko kontaan na ci sa jëf jooju ku ñu ko xamal mooy sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ñu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ahabul aamaali llahi taala bokk na ci jëf ju yàlla sopp ci jëfu doomu aadama yi buur bu kawe bi mooy ban jëf nañ leen bokk déglu yonentu bi détaayal ñu ko sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci jëf ya yàlla sopp ci jëfu doomu aadama yi bokk na ci jëf ya yàlla bëgg ci jëfu doomu aadama bi mooy sururun mbégte woo xamante ne tadxuluhu ala muslimin fexe nga ko be ko tàbbil ci xolu jullit fexe nga nga tàbbil mbégte ci xolu kenn ci jullit ñi fexe nga ba nga tàbbil ci këru kenn ci jullit ñi mbégte offril nga leen kado boo xamante ne dañ koy bége ofril nga leen message boo xamante ne dañ ciy bége offril nga leen matériel boo xamante ne dañ koy bége lu mel ni jëndal nga saaku ceeb ak bidamu dëwlin ak enveloppe bu duun jëmmale ko ci benn père de ne ko na ngeen gànnaayoo li ba jëmm jamono yow mi def loolu yow la yonent bi ne bokk na jëf ba yàlla sopp ci jëfu doomu aadama yi kontaante mbégte ba nga dugal ci xolu jullit bi mu ne bokk na ci ñaareelu jëfu doomu aadama bi ba yàlla di gërëm ba yàlla sopp mooy aw takshifu anhu kurbatan walla nga wuññul ko njaaxle ba mu nekkee loowaayee la yore mënees nañ kaa génn ci biti ussi bi taxaw na jox nañ ko dele boo ko yégee nga daldi taxaw taxawaayo bu leen ko génne dina gérer la mu war a fay wala ordonnance la yore mu war a faju wala mu war a faj njabootam bopp bi ubbu na mënuta laaj nga xam ko walla nga yëg ko wala ñu wax la ko nga daldi jël en charge paj boobu walla ordonnance boobu wala courant la ñu war a couper wala ndox ila yi yow fexeel daal aw takshifa ba kurbatan nanga ko taxawee njaxle ba mu nekkee ñàkk dépense ba mu nekkee nanga ko jox quinze jours dépense bi nga xamante ne dina ci war a mën a jëfandikoo en attendant leneen di ñëw danga xam ni kii dafa feebar te war naa faju waaye amut doole boo ko joxee recommandation ci bay defal yàlla yi mën nañ koo taxawee ba mu am wirgu yaram ba wirgu yaramam dellusi nanga ko taxawee fexeel nga wuññil ko njaxle ba mu nekkee fexeel nga suturaal ko ci xat-xat ba mu nekke fexeel nga tàqale ko moom jaxle ak tiis ba mu nekkee fexeel nga def sa kéemtalay kàttan nga daldi ko soreel ci njaaxle boobu walla nga suturaal ko ci bi mu tàqale ko bopp bu ubb boobu mu nekkee fexeel nga tàqale ko mu loolu noonu nanga doon sabab mu tàqale ko njaxle ba mu nekkee moo tax yonent bi ne aw walla takshif nga soreel ko nga yëkkitil ko anhu fa moom kurbatan njaxle ba mu nekkee walla e, tiitaange ba mu nekkee bokk na ci jëfu doomu aadama ba yàlla sopp bi léegi mooy aw taqdi anhu daynan walla nga feyal ko bor boo xamante ne daal gàlla loosam te mënul dem jàkk amaana bu demee jàkk ja du ñàkk mu dajeg fa ki mu lebal su ko defee kooku di ko xool bëtu ma moom it mu di ko xoolee bëtu amuma ba tax na kersa boobu dab na ko ba du teewee jàkk ja boo ko laajee bu la ne boru Masamba de moo gàll sama loos moo tax du ma nangoo fréquenté jàkk ja loo mun a joxe ngir mu fay bor boobu def ko ngir mu mun a frekkante jàkka ja wala dégg nga ne diw sangam kat diw daka amel bor nee na bu ko fayul da koy yóbbu ci kanamu yoon te amaana mun na ci amee yeddaange walla mun na ci amee sutura bu xawee ko yonent bi nee na aw tuquda anhu daynan wala nga fayal ko bor bal gàll ca loosam ba tax na mu war a ñàkk humanité ba tax na mu war a ñàkk valeur waaye nga taxawee ko ba bor boobu daal di fayu maanaam nga fayal ko bor boobu yonent bi nee na geste boobu tamit bokk na ci geste bu yàlla sopp lool ci jëfu doomu aadama yi yonent bi nee na bi léegi bokk na ci geste bu doomu aadama bi di def te yàlla sopp ko lool ci geste yi doomu aadama yi di jëf mooy aw taturudu ju juan nga musal ko ba xiif boo toogee nga di yëkkal ki ko soxla rawatina jullit bi boo jëndee nga sedd si ki ko soxla rawatina jullit bi xataa boo reyee sa gàtt walla sa jur na nga sedd ki nga xamante ni mooy ki ko soxla rawatina mu doon jullit kon yonent bi nee na bokk na ci jëf yu noobul ya yàlla sopp ci jëfu doomu aadama bi mooy sururun mbégte tadxuluhu alal muslim ba ñuy dugal ci jullit mbégte ba neex ba ñuy jëmale ci jullit mi yonent bi nee na gest boobu yàlla sopp na ko lool bokk na ci geste ba yàlla sopp ci jëfu doomu aadama bi mooy aw takk takshifa anhu kurbatan wala nga wuññul ko njaaxle ak coono ak tiitaange ba mu nekkee nga taxawee ko bi loolu deñ yonent bi nee na geste boobu tamit yàlla soxla na ko bëgg na ko lool ci jëfu doomu aadama aw tuqda anhu daynan wala nga feel ko bor boo xamante ne moo tax mu war a mën a ñàkk ngoram ak diineem ak jomam bu dee mën nga koo taxawee ba boobu faju ba boobu daal di fayeeku yonent bi nee képp ku def geste bi geste boobu daal geste bu neex yàlla la sest bu yàlla bëgg la waaye bu ci mujj mooy aw tatrudu anhu juin wala nga fegal ko ba mu bañ a tàbbi ci xiif boo xamante ne day tax mu feebar xiif boo xamante ne day tax mu jëfandikoo la mu warut jëfandikoo gis nga tey jii bu fekkente ne du anamu dikkinu ndakaaru kenn ku nekk bu toggee nga jëmale ko ci jàkk yi imam bi di xool ña seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo koy jëfandikoo kenn du xam bool yi ni ñuy toll waaye nag mala asaf malheureusement waaw fii daal boo gisee ñu togg yóbbu ko ci jàkka ji daal xelu ki ma xam ci la muy dem mooy sarax waaw ndax gaa yi dañoo tegtal sarax ba képp kuy jox nit kado sax képp kuy may nit sax lenn ca la nuroo ni la gaay di tegtal ne loolu sarax la buñ la koy jox comme kodo wala ñu di la ko meesa da nga naan mbaadu daf ma kaa sarax wallaahi suñu waaju baax daanoon na jënd ay fruits di ko indi si jàkk ba ñu dëkkoon ci euh, foofu ñu dëkkoon ndeysaan léegi-léegi nga jël fruits jox ko kenn mu di la laaj ba xam sarax la allahu akbar ma ne ko du sarax waa ji daal daa bëgg rek jullit yi di julli jàq ji ñoom ñoo am loo xamante ne dinañ ko war a mën a wittalikoo ci xëytu meññeef yi wallaahi danga koy jox ni samu gàntal waaw ndax gars yi dañoo tegtal sarax tegtal sarax tegtal sarax ba koy maye sax danaan mbaadu ndax ma koy sarax koy jox kado sax day defe ne danga koy sarax allahu akbar mu ngi noonu kon yonent bi nee na walla nga sorel nit ki mu bañ xiif waaw nga jox ko lu muy dépense walla nga jënd ay matériel ñëw dem ci grand surface yi waaw nga daldi di duy sareyo boobu bem fees waaw daal ko yóbbul tàbbil ko ci këru kenn ci jullit ñi yonent bi nee na geste boobu yàlla sopp na ko lool kon waaye bay defal yàlla yéeg ñooy taxawee social xadis baa ngi nii sururun tadxuluhu alal muslim mbégte bi nga bër a ba nga war a dugal ci jullit rawatina doomu aadama geste boobu yàlla bëgg na ko kon yow bay defal yàlla may taxawee social xadis bi gis nga ci sa bopp aw takshifa anhu kurbatan yow miy def edd bi tamit yaa ko moom nanga dimbali nit ñi daldi leen yëkkatil njaxre ba ñu nekkee bopp bu ubbu ba ñu nekkee fexeel nga taxawee leen ba loolu deñ waaye yow mi nga xamante ne yàlla dénk na la astuut bàyyil xel borom bor su ko defee nga taxawee ko bor boobu mu amel nit ki nga taxawee ko bem ko fay moo tax yonent bi ne aw tuqdaa anhu daynan wala nga fayal ko bor ya koy tere nelaw am na bor yoo xamante ne euh, loosu ñu mu gàll daal fajar la ñuy génn te bu ñuy ñëw te bu ñuy ñëw dañuy ñib si fekk xale yi tëdd nañ fajar la ñuy génn seen kër ah su ko defee ñuy ñib si waxtu woo xamante ne kenn mënu koo wax maanaam fajar la ñuy génn seen kër waaye nag ah yàlla dogal na daal bu ñuy ñib si du ñàkk mu nekk waxtu woo xamante ni day doon waxtu bu xaw a doy waar ndax tellement la defe ne loolu mooy leen di xaar kon yow mi xam lii ci jëmm boo ko taxawee nga dimbale ko ba mu taxale ko loolee muy li gën waaw ba tax na yonent bi tëjee xadis bi ne walla nga soreel ko lépp li nga xamante ne xeetu xiif la nga soreel ko lépp loo xamante ne xeetu euh, la koy teree nelaw la rawatine xiif boo xamante ne kenn mënut a dëkkaaleeg moom xataa ci weeri koor bur yàlla ci yërmandem daf ñu ne na ngeen ko tàmbale ci waxtuy fajar waaye na ngeen ko jeexal keroog bu jënt wi soowe kon bur yàlla utal nañu àpp ba ñuy xiifal suñu bopp muy koor waaye utal nañu àpp bañ koy dakkal ñu daal di sóobu ci e, dàq xiif mooy jëfandikoo affaire sànne ku ndaay yeeg tuure ku ndaay yeeg siise ku ndaay kon yonent bi nee na képp koy taxawee nit ki pour mu bañ a doon ku xiif mooy li gën sallallahu alayhi kon ñu ngi fàttali mbokk yi nga xamante ne ñooy bay defal yàlla yi xadis bi ñoo ko moom waaye rawatina député yi nga xamante ni ñomit it yàlla dogal na ñoo teewal askan bi ci pencum ndaw réew mi nañu bàyyi xel askan baleen fal ak la tax ñu fal leen nañ leen gëstu ci mimma razaqnaahum yunfiquun ca la leen yàlla wërsëgal mu doon lañu delloo ci askan bi ngir askan bi xam ne ñañu fal daal ñu ngi ñuy taxawee suñuy besoin ñañu fal daal ñu ñuy taxawee suñuy soxla ñañu fal ñu ngi ñuy delloo njukkal ñañu fal ñu ngi nii dañuñ di xam ne ndekete ay nit a fal kon nii lañuy déggee maanaa xadis bi yan nañu ko bur yàlla yombalal amaana tey dinañu continuer ki yéen ci waxtu su néew yu ñu desee ci message doléance wala plainte ba ñaari jëmm yooyu ñëw fekk yonentu yàlla daawud alayhi salaam fa mu nekkoon di jaamu boroomam ci mihraab nañu duggee na mu tiitee nañ ko tontu ne ko bur tiit ñaari jëmm yu xuloo lañu kenn ku nekk defe ne yaa yey sa moroom ba tax na ñoo ngi sàkku ci yow daawuda na nga àtt suñu diggante ci dëgg bul jeng te nga orienté teg ñu ci yoon bu jubbi léegi nag ñoom ñaar commencé nañu di joxe seen plaint ci kanamu yonent yàlla daawud kon yonent yàlla daawud mu ngi nii di déglu kom président assemblée nationale comme commissariat beeg comme xaadi beeg comme juge beek kon ñu ngi déglu ñaari yu xuloo ni cëpp ci kanamu daawud léegi kilifa yañ leen nii ñu ngi nii déglu ñu ngi waaj a joxe seen déclaration wala seen plainte yi ñu bind dañ ne dañoo waxandoor ñu ne inna haada axi lahu tisun wa tisuuna najatan waliya najatun waxida fa qaala akfilniiha wa aazani fi lxitaab ñaar yooyu noonu doon xuloo ci gàttal dañuy tënk aaya bi du ñàkk bu ñu delsee ñu gën ko war a mën a taawi ñaar yooyu noonu doon xuloo bu ñu taxawee ci kanamu nabillaahi daawuda alayhi salaam gannaaw buñ ko ne nanga nga suñu diggante ci dëgg te bul jeng waaye nang ñu orienté ci yoon bu jub kenn ki ne ko inna haada axi kii sama freer la sama mbokk la lahu tisun wa tisuuna naajatan am na quatre-vingt-dix-neuf jur waaw jur yu mu yore daal toll na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent waaw quatre vingt la yore buñ ko mënee méngale nag mu ne ko quatre-vingt-dix-neuf tête de la yore quatre vingt dix la yore waliya naajatun wahida man nag benn xar dong laa yor fa qaala akfilniha wa azani fi lxitaab mu daldi jël sama benn xar boobu walla sama benn jur boobu en tout cas daal wóor na ma ci biir wax ba mu ko jël hmm? ba kenn ki waxee lii Daawud au mu déglu version keneen ki benn version la dégg kenn ki moo njëkk a joxe la mu war a wax keneen ki waxagul yonent yàlla Daawuda daldi di àtte mu ne qaala laqad zalamaka bi suaali najatika ila niaajihi naam yéen ci la daawuda dégluwul verson keneen ki moom kii bu ko ne kii sama frère la 99 tête de mouton la yore te man ma yore benn xar dong waaw juróom-ñeent fukk juróom-ñeenti bopp xar la yore ci ay jur te man ma yore benn jur rekk mu ne ma jox ma sa jur bi wax nag man wër na ma ci biir wax bi mu nangu sama jur bi daawuda dégluwul keneen ki mu wax daawuda ne ca dëgg-dëgg-dëgg laqad zalamaka bi su suaali najatika ila niaajihi mu ne keneen ki ne daal yow tooñ nga sa waaji de sa mbokk bi tooñ nga ko de ci la tax nga jël benn xar ba mu yore nga nar koo yokk ci sa juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti xar yi la tax nga war a jël xaru sa mbokk bi di mendum xar ba mu yore nar koo yokk ci sa quatre vingt xar yi lu tax nga war a jël benn jur ba mu yore nga war koo yokk ci sa jur ba nga yor yow te yaa ko ëppale fuuf ñu ne fii yàlla daa doon jàngal yonent yàlla daawuda lenn la mu musoon na atte yàlla daal di ko won ne atte bi daal boo defee recours wala nga def appel comme nuñ koy waxee soxna mari bu dee lool la waaw nga attewaat ko muy li gën kon la gaay di def nii ci seeni luwaa ci alquran lañ ko jëlee ndax yàlla moo ne daawuda àtte boobu de man gis naa ne boo ko defaatee mooy li gën wala nga tuub nga jéggalu xam ne loolu erreur ba jaar ci sa tribunal ba nga doon àtte keroog am ñu koy taawil ne am na ku mu gis koo xamante ne na njabootu lenn la ci général ci armée bi mu bëgg kaa jël comme njaboot mu daldi yónni général bi ci guerre bi te xam na ne front boobu ba fa général bi demee dina daanu te bu daanoo dootu delsi su ko defee mu daldi jël soxnay général boobu mu def ko boole ko ci soxnaam loolu ay israiliyaat la yooyu wérul firi boobu wérul dafa musa àtte ci ñaari diggante mu déglu kii dégluwul keneen ki mu daal di atte loolu la ko yàlla bëgg a rectifier loo amma euh, al israiliyaat ay juif yuy firi alquran ñuy jox tor yonent yàlla daawuda ci affaire euh, yónni na général bi daanu na ci front bi après soxna kooku la jël ñu ne loolu la ko yàlla doon rectifier loolu saxul loolu saxul waaw aaya bi nu mu nekkee firi na boppam ñaari nit ñoo ñëw ci daawuda daawda war leen atte kii wax ba noppi keneen ki waxul daawda daal di atte yàlla ne ko deet danga war a xaar kii atte ki tamit wax nga mën a atte seen diggante waaye kii wax déglu nga kii kii waxagul yow nga daal di jël baton bi dóor ko ne yow tooñ nga lu tax nga jël mennum xaram yokk ko sa mennum si sa 99 xar yi loolu loolu loolu loolu xel waru mën a atte noonu sax ñaari nit bu ñu jotee bu ñëwee ci yow da ngay déglu kii déglu kee waaw ndax ñu ñëwoon ndoor kon déglu ñaari version yi moom mais moom benn version la déglu déglu ñaareel bi mu àtte yàlla ne ko deet affaire bi warul nekk nii la ko yàlla rectifier nag incha allah buñ delsee dinañ ko euh, andi ñu wéyande ki yéen ci la ko yàlla rectifier moom daawuda alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy yëbbante suñu député yi ñu war a teewal pencum ndaw réew mi di suñu assemblée nationale ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom yal na leen yàlla kattanal yal na leen yàlla dooleel yal na yàlla leeral seeni xel ak seeni i xol yàlla dooleel leen ba la ñu naal ñu yeggali ko lu ñu sumb tamit ñu taxawee ko comme le dëppoo ngir mànde yàlla askan bi war see na a gis seen bopp amin ya rabbal alamin yomb na yàlla sañ na ko yal nañ ko bor yàlla boole defal allahuma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a te jotaay bi ñuy tas xibaar ñu ngi nii taxaw ñu fas yéene leen jébal béréb bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu